dal leen ak jàmm si seen émission di ëttu ndaanaan yi moo ngi amee fii si seen youtube bu Teuf Connection ki leen koy présenté di DJ Kamokhi l'animateur du peuple le plus jeune animateur de sa génération mooy def émission ëttu ndaanaan yi di si dalal bépp ndaanaan moo xam ngay uudee moo xam ngay téye moo xam ngay maçon moo xam ngay théâtre moo xam ngay way moo xam yow animateur bi wala animatrice ba ak lu mënti doon daal jàpp ne bis dina ñëw di nga jàkkaarloog DJ Kamokhi si saison boobu noonu nga xamante ni si ni fa lay dalalee ndaanaan yi États-Unis ba ngaa jàllale say marchandise wala nga bëgg a bokk si sponsor yi mën ngaa def 70 883 93 42 70 883 93 42 ëttu ndaanaan yi daal da ngay doon daanaan fii lay xëwee si seen YouTube bu Teuf Connection avec di DJ Kamori l'animateur du peuple le plus jeune animateur de sa génération dem leen si seen YouTube bu Teuf Connection TV Sénégal di nga mën a am émission yi live en direct kawutee bu leen ko tax di benn yoon ëttu ndaanaan yi ak DJ Kamori di ngeen di doon daanaan ba faaw. saa su nekk teewaat fii nii si seen émission bu mag bi nga xamante ni si nii moom la ñu tuddee tundaa naa nit ñu dellu siwaat bu baax baax a baax a baax waaye yéen it di leen kontaane yéen téléspectateur bu Teuf Connection TV Sénégal di leen bëggee euh, bu baax a baax a baax te tundaa naa ni nag amati nañ gan ndaanaan la si domaine bi nga xamante ni si ni moom la yëngatu waaye ndaanaan aussi si li nga xamante ni si ni moom lay nekk muy wàllu animation à la rajo euh, Abdou Lahad Sène Géwélu jàngkat yi di ko kontaane bu baax a baax a baax tey rafet lu euh, si évén si nungu bi nga xamante ni si ni nungu na ko invité bi maa ngi koy kontaane bu baax a baax a baax Euh, damay bàyyi rek sama invité mu nuyoog euh, téléspectateurs yi bu Teuf TV Connexion Sénégal di leen bëggee bu baax a baax a baax a baax euh, Abdoulaye Sène. jërëjëf maa ngi leen di baax ñu ngi lay nuyu di bu baax di siyaare waa télé bi yépp di leen nuyu di leen ziar bu baax a baax di kontaan ti ndorteelu ndaanaan émission bu bi nga xam tamit mbooleem koo xam ni tamit artiste nga war nga cee bokk. ci mo xam ci la nga yëngu ñu ngi la ci contane dina ci féliciter dina ci encourager bu baaxa baax di nangul invitation bi yépp ndax tamit macha allah fi nga ñëw tay dal war nga fee ñëw ca képp ko xamni war nga juk diko séti war na lay bayyi xel bu baaxa baax émission bu mag bi euh, émission ndaanaan ndax nit ku ne la nga yëngu ndaanaan nga ca ak lu mu mën di doon tamit ndaanaan nga ca wax dëgg yàlla kon ñu ngi ciy kontaan di ciy bég di ci eh, jaajëfal la ba pare nag di la dala ci émission bi wax dëgg yàlla euh, lépp loo fi eh, indi ci ay laaj ci ay waxtaan lépp incha allah dina la ci tontu ci kàttanu yàlla sunu borom bi di ziara ñëpp di béggee waa kër gi soxna Aida soxna Aida Diallo ak Ousmane jàlloo di ko ziara bu baax di ziara bu baax a baax soxna di ziara di sekk mm. di ko béggee di ko kontaan wér-wér di ziara baax soxna Faat Ndiaye.

Serigne Ndiaga Seck di ziara bu baax a baax xam naa nuyu bi foofu lañ ko daal di koy tënk rek. macha allah bu ko defee ñu daal di soog a jublu ci émission bi incha allah ci kàttan yàlla. Ah, am solo bu baax a baax a baax euh, comme ni nga ko waxee rek euh, émission bi ëttu ndaanaan ni la tudd waaye kenn ku nekk si la nga yëngu kenn ku nekk si domaine bi nga xamante ni si ni fa ngay nekk ndaanaan nga si di leen si bëggee bu baax a baax a baax a baax a baax ayca maa ngi ñu ñu ñëw asane ah, suñu question. laaj abdoulaye jëkk mu di eh, di ziarar bu baax di kontaan bu wér wér ci question boobu nga nu laaj wax dëgg yàlla ndax dañ boo nu ko laajee dañ ci sawar a tontu waaye di ñaanal sëriñ abdoulaye mbàkke kàbb gay sunu borom yàgg ko fi loolu ci mànd ko wér di ziar bu baax moustapha seen ndax xam naa tamit ñu ngi koy suivre cheikh loo seen cheikh gay abdou samad seen abdou lahat seen nag di nekk eh, ndaw loo xam ni wax dëgg yàlla iya am lu mu dëgmal ca li mu dëgmal nag am ci yaakaar am ci confiance Euh, di ci tàllal loxo képp koo xam ni mën na koo ci jàppale muy wax ak doole ndax wax ju baax wax ju rafet sax ci jàppale lay doon di ci tàllal loxo ñépp comme que moom dafa nekk xale boo xam ne li mu bëgg tamit euh, fi mu teg yoonam nekk na loo xam ni tamit euh, bëgg na ci ay taxaw ay jàppale waaye tamit di ci wane liggéey bu ma sëkk Eh, ànd ci fulla ak fayda Abdoulaye Sène nag mhm. mi ngi eh, nekk tamit sëtu eh, Touré Ngën mhm. dëgg yàlla di doomi Kàbb Gay mhm. waaye waajuram góor cosaanoo jàngaan ak ak paam di ko di la ci ziar ci loolu nga xam ne question boobu nga xam ne posé nga wax dëgg yàlla Abdoulaye Sène nekk li nga xam ne tamit wax dëgg yàlla ay maamam ak papam ñepp ñëpp nekk jàngkatu xasida mhm. wax deug yalla kon daal lolu ñu ngi koy defal lu baax masha allah mi ngi nañu wax nañu bu baax a baax baax kam noy abdullah sen wax na bu baax fi nga xamanteni ci ni fa la sokko go ay mbokkam tamit wax na leen tamit fi nga xamanteni ci ni fa lay nekk ba tay ñu déroulé suñu question yi bu baax a baax baax a baax Abdoulaye Sène euh, lan mako duggal ci walu wàllu animation xaju dafa xey xey rek benn bis mu dugg ci wala ay mbokam dañ seen nekk di si yëngatu mu dugg ci buñ bëggoon na xam lan mako duggal dugal. waaw Abdou sen mi ko duggal ci walum animation. wax dëgg yalla da naan domi mbeur jangil bari mhm. waye tamit domi géwél jangil tëgg wala nga jàngi way. ci mhm. yaakar na ni man fi ma nek mhm. nekk wo xamé dañ leen di jaawale ak géwél. waaye xeet ma bokk rab la. ndax rab ak géwél lenn leen da am différence. différence bi moy bu njëkk euh, euh, mag ñi dañ daan def seen sëri ràbb di ko jaay nit ñi ndax bu njëkk sax bu bu kenn musaan di sëyi mhm. dañ lay wutal sëru ràbb muy sëru rabam mhm. bu boobaa ñu ni demal ca ràbb ya waaw ndax ñoom ñi defar sëri ya jox la ko kon loolu mu fi indi baatub ràbb géwël nag mhm. bu nu soññee benn mbir moo daa yor boolam wala muy yor benn lu mën di tëggee wala mm-hmm. ndëndam mm-hmm. jóg di ko fëgg mm-hmm. ngir nit ña mën a mën a concentré wu ca loola bu ko defee moom moom baat yi mu bëgg jàllale ci message ba mu jàllale ko fa moo tax loolu muy nu baat géwël waaw ndax dinaa géwël danaa nekk ci mën a nekk ci xare bi yorum ndëndam di jiin waaye kenn dawu ko rey kon lu indi diggante baat géer baat géwël ak ràbb waaw waaye man nag li ma ci indi wax dëgg yàlla ndax kenn ku ne fi la yàlla di cërale fi la yàlla di la awale la ndax nit ku ne am na suñu borom fu mu lay jaarale ba nga mën a ràññoo ci loola waaye nag samay maam ak samay mbokk yépp xasida lañ leen xamee mu yëkkati xasida yàlla nag dimbali yàlla nag def nag féetewuma foofa waaye loolu ak sant yàlla la ba tax na fi ma yàlla féetalee mooy euh, nekk di jéem di nekk communicateur traditionnel ndax loolu yombul waaye nag leen loo gis ak jagleel la ci sunu borom mm-hmm. ndax nit euh, wax mm-hmm. di nga dugg ci école mm-hmm. di ko jàng dañ la yóbbu ci ci daara di la ko jàngal ngir nga man wax waaye ca fekk na loolu lépp bu la ko sunu borom jagleelul loo ca dara waaw ci nit euh, dina mën a wax ba ba ku ko dégg ñu ni kii moom fan la jàngee ca fekk na booba ndimbalu sunu borom la man nag loolu moo ma duggal ci Euh, animation bu ci duggee nag hmm. yàlla euh, nattu ma nag ci nag mooy animation jàng yi. waaw kon ko man man ak jàngkat daanaka nii leen def ay xarit lan ay wëlële lan ay mbokk lan. Hmm. yàlla jërëjëf si tontu bu baax a baax a baax am na solo hmm. euh, suñ bëggoon a xam Abdoulaye Sène ban année la dugg si wàllum animation ak fan ban rajo la njëkk jaar si wàllu animation. wala benn rajo li ma laaj nii dëgg lu may di sawar a tontu la. ndax man bi ma nekkee ci rajo bi daanaka ay ñetti at yooyu ci lay toll. rajo bi ma sama demandé ma àggee boo maa ngi toog atelier di enregistré di enregistré alimentation jàng bi ma yeggee bi ko tegalee directeur bi dañu ma lii ban rajo nga ko defee ma ne ko lii de defuma ko ci benn rajo mu ni ma léegi daal di téye euh, demande boobu mhm. ba trois jours nag mhm. yàlla dogal ni rajo boobu jotuma faa nekk bima di mati di bana rajo bi ci may Ngaye FM. Mhm. ci leen ma jël bi ma jëlee may def ay animation jang ba bi ma njëkk yi def sax sama sama première émission. Mhm. bi ma génnee maa ngi dajeeg directeur mu ma ban rajo nga jaar ma ne ko jaaraguma ci benn rajo mu ni ma boo ko mhm. di nga ci am lu ne ca ca tur sa sa dina fa àgg fu ba ki ma duwal di maam Ngor Gueye bi ma nye mu ni ma dugg na émission bi waaye yalla dénk na la tanga boo ko gëmee liñ ci bëgg am di nga ko jamono. macha ba ba jëleen jëmmi jamono. projet mhm. boobu ma déposé woon nag. te mhm. jëlu te te jëluñu ko. Mhm. Euh, yeneen jëmmi jamono muy dox ba bëgg a ñëw liggéey ak man. ba bëgg maa jox beneen post sax muy musique. ma ne ko déedéet man loolu nekkul sama sama rôle. ca instant yi daa am rajo bu ma nekk. waaw ca loolu sax jiwul sax di jàllale sax waaye. Euh, kii la rek maanaam. Euh, leeral la waaw leeral la. Ah. ak yoon bi ngay bi nga bëgg. ba ba di fa àgg ba ba ba àdduna di ñëwaat ba ñooñu soxlawaat la nga xam nit ki kon lu muy nekk. Hmm. da caa war a gëm boppam. gëm boppam am ca décision. Hmm. ba pare di ca xalaat. Hmm. ba pare di ko def di ko jox àq ak yelleef ak ci ci li man mën nek mm. ko dal loolu moy li nga xamante ne li lii duggal mm. ci dugal. ci jere jere di mi ngi nonu tarkalla wax na li nga ci ni mom moko duggal ci walum radio ak uh, jaar-jaar yi nga ci ni rek amna na fa waye ni i tarkalla uh, ngeen dem suñu page uh, YouTube bu Teuf connexion TV senegal ngeen dem abonné waye tamit ngeen like fofu non la émission yi di daw fofu rek la ba la fa demee ngeen am émission yi live en direct waye suñu compte TikTok ba ba la fa demee di ngeen fa mëna am émission en direct.

ndax booy def benn émission boo xam ni bëgg nga doomu aadama yi bëgg ko waaye jamono ji dafa duna toll jamono joo xam ne daanaka ñiy def caaxaan ñoom lañ gën a bëgg ñoom lañ gën a respecté mm-hmm. yow booy def émission diine daanaka duñ la placé sax mm-hmm. ci yow xale nga ëmb loo bëgg dañ lay placé ci mag ñi dañ lay danaan kii wax ndax paa la wala ñaata at la wala ñaata soxna la yor mm-hmm. foofu la la ci àggale émission nag Euh, amul benn boo xam ne maanaam naqare na ma ci. Hmm. amul benn boo xam ne tey jii am na loo xam ne dañu ma ko xalaat ne jaral naa ma bàyyee déet. Hmm. Euh, ndax bi ma ci gën a marqué mooy. Hmm. su bi mu a def émission. ñëw fekk ñu lal beneen programme. boo xam ne minguwul ak bis bi bis bi may def. bis bi ndax ku ne xam ne man suuru àjjuma laay def. suuru àjjuma boobu may def nag. Euh, bu keneen ñëwee dafa teg ay musique wala mu teg leen ay caaxaan. man loolu daf may metti ndax àjjuma amul leneen lu fa war a teg lu diine ci émission boo ko dee def émission diine am na ñoo xam ne foofu la leen yàlla placé am na ñoo xam ne ci leneen leen yàlla placé waaw euh, nga ñëw wala yëpp def émission euh, say soppee ñëw euh, di xaar émission boobu ndax liñ ci def mooy ñi tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam tamit ay jànkati xasida ndax ñëpp ci wenn yoon yu la bokk waaw kii jànkatu tijaan beeg xaadir beeg laayeen beeg ñeseen beeg ba ki ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax lépp moom la ma ci yoon boobu ca la nekk macha allah waaw euh, loolu daal moom ci euh, marqué bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. émission diine yi ni def nan mm-hmm. na ci jàppale mm-hmm. ndax émission diine ñun ay ndaw la mën noonu woon nekkaat ci beneen émission di ko def wala ñu defaat ci yeneen i caaxaan yoo xam ne tey jii ah wax dëgg yàlla euh, day xaw a tiis ngay taxaw di ko wax ndax am na ñoo xam ne la def mu taxaw ci kër àdduna lii lii maa koy def te nag bu la yàlla dimbalee. Mhm. ngay def émission diine foo taxaw waxoo. te mag ña ngay fekk ñu jox la cër jox la gëdd. Mhm. kon loolu gën koo jàpp bu baax a baax waaye nag bu nangu nag. Mhm. ku la ko yàqal ci ay wax ci ay jëf. ci ay ay yeneen i doxalin. te des fois nit mën nañu di la gëstu. ci looy nekk looy dox. te fekk naa jublu ci leen lu sabotage. sabotage waaye boobaa tamit nañ ci am xel. am ci yar am ci teggeel xam na ngay wax ak moom. dëgg la bu dara ñaaw seen diggante. Mm. la nga seq mën na ko seq moom waaye nag bu mu xam sa xiif. Mm. bu mu xam sa mar bu mu mm. xam sa sa sa sa ndax waaw ndax euh, nit ki lu mu nekk na ko gëm nekkoo ko ci man li ma nekk dama cee dama koo gëm. dama koo gëm. comme que nag man euh, ñi nga xam ne ñoom laay dund ñoom ñoo may encouragé. te buy dul ku lay encouragé doo mos a découragé. jërëjëf di Abdoulaye Sène leeral yi am na solo bu baax a baax a baax a baax te ba tey suñ bëggoon a xam ndax Abdoulaye Sène am na métier euh, wala wala ba si. animation rek la yem Abdoulaye am na métier métier euh, euh, cordonnier lay def lépp lu jëm ci wàllu mbaar ndax dañuy olof dañuy boo bëggee mbir mm. di ko def mm. dañ cee am fulam ca dignité te métier mi ñu nekk nii ni bu mu wax mm-hmm. dañ naa nga war am sa métier mm-hmm. day jàng boo boo fa jugee mm-hmm. nga bàyyi sa palaas soo fa jugee nga dellu sa place ndax boo dee boo fekkante da nga ko bëgg a lépp ci wax ji rek da nga bëgg yére bu rafet wala nga bëgg dàll bu rafet wala nga bëgg foo jëm daanaka da ngay yaakaar en change de mais bu amee sa métier daanaka lu baree baree baree baree da lay tënk. ndax yaa ngi sa biir wax ni euh, am na nit euh, bu dee wax yëngatu si wàllum wax maanaam wàllum animation wala lu mënti doon daal da koy dafay féete foofu noonu rek lànk bañ ko booleel métier ndax ay nitam yu baax yi nga xamante ni si nii am na luñ koy jox wala aussi li nga xamante ni si nii rek euh, moom lay am si si rajo bi. wala tamit euh, Abdoulaye Sène xoolul yooyu noonu ni ko nit ñu baax yi di defal wala li nga xamante ni si ne am na ko sa rajo ba moom daal li mu gis métier bi. waaw ak ñoom ñaar ndax man euh, ñi may defal. ci ci wàllu ci côté rajo bi. Mhm. man dama ciy kontaan di ci bëgg di ci di leen ci ziara bu baax a baax a baax a baax a baax. Mhm. am na ci nit ñoo xam ni. Mhm. dañuy yëkkati seen alal di ma jox. ca maguma leen ëpp ma leen xel. Euh, gënuma leen am xam-xam. mais yëg-yëg bi ni am ci man ba jël alal ji di ma ko jox. loolu dama ciy kontaan bu baax a baax ca bari la ñoo xam ni. ñi ngi may jàppale bu baax a baax a baax a baax a baax. Euh, beneen di topp tamit mooy euh, sama digganteeg jànkati xaside yëpp. Euh, wax dëgg yàlla am ci xaaj ak seen wax dëgg yàlla. ndax boo dee xool jànkati xaside yi ci bari yëpp ñi gën a siiw. ci àdduna bi yëpp. kenn ku ne damay déggante ak ñoom téléphone di waxtaan ak ñoom di leen laaj seen conseil tamit wax dëgg yàlla mhm. di leen ci kontaane bu baax a baax a baax di ziare bu mhm. ci mel ne Abdoulaye Seck Ngaye Soxna Khady Ndiaye mhm. ñoom ñëpp euh, Moustapha Seck euh, di leen ci ziare leen ci kontaane bu wér a wér waaye tamit loolu di yàlla dañ maa ci euh, aca mi ngi noonu daal suñ bëggoon a xam ndax méngoo naag jamono bu ma nee méngoog naa jamono ndax mu ngi dugg si wàllum li nga xamante ne si ni moo di TikTok wala Instagram wala YouTube ndax Abdou Lahad Sène moom moo ngi fay dugg wala suñ bëggoon a xam aussi li nga xamante ne si ni ah, fa lay tànnee li nga xamante ne si ni mooy eh, ay invité si wàllu animation que ce soit day dugg si ah, li nga xamante ne si ni mooy réseaux sociaux yi tànn fa ben invité mu indi ko wala day euh, day dem fekk ci invité bi wala invité bi moom mooy ñëw euh, ñew ma ci mom ni ko invité ma suñ bëggon xam yoy yëpp noonu. lan la ko Abdoulaye dama bëgg nga invité ma. Mm-hmm. ndax limay faral di wax rek. nit ki lu muy yëngu. Mm-hmm. jërul dem ci nit naan ko émission sangam lay def. Mm-hmm. yow da ngay fexé ba émission bi ngay def. askan bi dañ ci gis seen bopp. ki koy duglu. da ci gis boppam ki koy dégg gis ci boppam émission ñett yooyu lay doxle waaye fekkee da ngay wër ni man damay def émission sàngam day ma dugle bis sàngam mm. émission bi ngay def joxoo ko gëddam mm. ku ko xam ne émission bi yow wuroo koo seere bu boobaa émission boobu da nga koy yàq des fois nit woo ma ni damaa bëgg nga invité ma ci sama sa sàngam man la ko damaa am invitation mm-hmm. xaaral ba bu deesi bu deesi boobu da nga koy xaar ndax parce que émission bi li muy laaj maa nga koy jox des fois ma fekki nit ni ko dama laa bëgg invité. mu nangul ma loola wala mu ni ma damaa jàpp renvoyé ma ba beneen bis bis boobu dama koy topp ndax parce que émission bi laa bëgg jaay te en temps tamit man ñu koy def tamit nit ñi dañ ma ci gën a fonk gën ma cee bége. des fois ma génne ko. des fois ma jël ko direct ko dem fekk koo xam ne mënut ñëw. ma ne ko tey yow laay dalal ndax parce que émission. Hmm. waru ko yemale ci biir rajo bi kase. Hmm. il faut nga génn ko génn ko nga koy génn nag mhm. di nga ci am deux cent pour cent deux cent pour cent yi ñu ci am mhm. ki ngay dalal dina dina am fu a la teg mhm. ci en même temps ña ña ngi koy fekki ñooñu dana la bëgg-bëgg goo xam ni ca kenn ku ne dina bëgg nga fekk si ko en même temps ñu ko dul tamit avantage la ci ñoom ndax keneen ne ah kon diw moom mi ngi génne émission bi am na am na keneen euh, koo xam ne fekki jii euh, fekk ji na ko kon émission bi day indi avancement Euh, tamit loolu wax dëgg yàlla lu am solo la. Mm-hmm. ci wàllu euh, réseaux sociaux yi. médias yi ak TikTok beeg WhatsApp beeg yooyu. amoon naa groupe soppeeku WhatsApp. mais dama ko mujj. Mm-hmm. ma tëj ko. ndax euh, jamono. Mm-hmm. dafa am lu mu laaj. boo tollee ci liggéey. wuroo di nelaw ba yàndoor wuroo di biddanti wuroo di taayal. moo tax groupe boobu ma tëj ko nii am na lu ma ab lancé am na lu nekk ci kanamam. loo xam nii. am na lu gën a amal importance. Mm-hmm. muy groupe WhatsApp. TikTok bi nag maa ngi dugal ay ay ay vidéo di def samay vidéo yi bare bare da ni ngay def boo nekkee sa kër mm-hmm. di filmer di def ay animation si euh, biir kër gi mm-hmm. ngay filmer foofu noonu di ko fa dugal wala ban genre vidéo nag bu may invité euh, ci biir émission bi daa def vidéo dugal ko sama compte léegi am na ñoo xam ne tamit damay toog euh, di waxti actualité jamono fi mu toll di ci wax di ko dugal ndax am na soppi boo xam ne nii. Mm-hmm. ci rajo bi rek lay dund. mi ngi waaw mi ngi toll mi ngi mi ngi nekkul Sénégal. Mm-hmm. wala bu nekk Sénégal tamit mun ta jàpp fréquence bi wala mënut a jàpp application bi. Mm-hmm. léegi ci TikTok bi jamono ji xam ne jamono ndax jamono moom bu dee dox da ngay ànd moom di dox. waaw foofu la fay gis rek. mën na ci am mbégte des fois tamit mu ni la lii li ma seenal tamit léegi lii nga dugg fa. léegi lii tamit nga ko léegi lii nga ko waxee. tamit wax Euh, ñu ngi ci bu baax a baax a baax. ak noonu tarkalla Abdoulaye Sène am na lu nga xamante ni si nii leeral na ko euh, si ay biiru waxam si li nga xamante ni si nii. Euh, ay ñaalem yi nga xamante ni si nii ñoom ñoo nekk si walum tiktok que ce soit si whatsapp bi ak lu mënti doon tarkaale mi euh ak la sen mu melni waxtu ba li si dess euh, bëreetul dañu lay bayyi rek nga joxe say dernier message yi nga xamante ni rek war nga ko jox sa moroom naataango yi nga xamante ni si ñoo wal nekk ci walum euh, animation rajo que ce soit muy animatrice ak lu mënti doon euh, ban message aussi nga leen di jox ak lan nga leen di dénk ñu ngi lay eh, kontaane di félicitation ci émission bi macha allah waaye li ma ciy dolli eh, tamit wax dëgg yàlla ñu nan nu jàppale nan nu jàppale ñun ñi nga xam ne tamit wax dëgg yàlla ndax boo xool ñi ni roy ñooñu ay roy waaye lañ ci réew mi. Mm-hmm. ñu nekk communication traditionnel bu mag a mag a mag ci réew mi. Mm-hmm. daanaka bu réew mi demee ba tollu fenn ñoom la ñuy woo pour ñu waxtaanee kon nag ñun ci wala nu nekk. Mm-hmm. nan nu ci jàppale. ca ba ca gën a yaatal xol yi. ca bañ a tëj suñu xol yi ndax doomu aadama bu tëjoo xolam daanaka wërsëgam day tëju nanu nan nanu jàppalante mhm. ca yërëmante ca mhm. tamit ñu yaatalante ci lu baree baree bare bare mhm. ab lanceen nag euh, di yàlla nekk xale boo xam ne dëgg kàbbu di ziare bu baax mboolem ku nekk foofu ci euh, kàbbu gay di ñaanal sëñ Abdou Karam Mbàkke suñu wala mu defoon loo lay cëram soxla nañ ko nu jàppale dëgg yàlla soxla nañ ko lool lool lool lool lool soxla gi nag ñi ko war a wax dinañ ko wax. Mm-hmm. ñi ko ñi ci war a waxtaanal. Mm-hmm. dinañ leen ko wax waaye nag duñ leen ci forcer. ba pare duñ leen ci sono yenn sono ndax mm-hmm. garab ci kaw lay fekkante ci yaakaar naa yoon boo gis am dëkk bu mu jëm wala am wala mu wala mu jugee ci benn dëkk. ci yaakaar naa ñu ñu ñu ñu ngi ci yoon yi. ci incha allahu rabbi Euh, ñi mu tàllal loxo yi jàppale leen mm-hmm. nan lu gën a jàppale bu baax a baax bu ñu yàlla mayee tawfeex rek incha allah mm-hmm. yoon yoon wi yoon aw ba àgg ci dëkk ba ñu ngi ci yoon woo ci incha allah ci dinañ ñëw ci dëkk bi mm-hmm. bu bu baax a baax a baax euh, tamit di ziara ñëpp képp koo xam ne rek soppe Abdou moo xam ki ko bëgg moo xam ko beñ ñëpp ñu ngi la ziara bu baax a baax a baax a baax waaw bu mel ni tamit nag am na bis boo xam ne ñu ngi koy waajal Euh, Kàbb Gaye euh, première édition bi nag ren ji lañ ko bëgg a jàpp incha allah ci kàttanu yàlla sunu borom bi euh, kii nu koy defar Abdoulaye Seck yàgg na koo bëgg a may waaye nag Covid bi moo taxam hmm. ren ji nag nu jàpp ko bu nu kortee ba am ca troisième jour ba hmm. def ko ngontum xasida hmm. tudde ko si Abdoulahat Mbacke waaye nag di ci sant Serigne Abdoul Akram Mbacke ca Kàbb Gaye di ci woo mboolem jànkatu xasida yëpp xarit yeeg soppe yeeg am di jàmm yi ñëpp ñu koy waaj bu baax a baax bi bi nag ren maa ko tuddee Euh, ki nga xam ne mooy alaaji Maxtaar Mbay boroom jaara yi ngay nekk Serigne Baara gi moom laa ko tuddee daal di cay tuddee ki nga xam ne mooy soxna Ami Lay nga xam ne mooy jàmbaari si Abdou Lahad Mbacké mm. mën naa ne mooy ngay nekk Serigne Abdou Lahad gi <laughs> waaye nag daal di cay tuddee nag imaamu dëkk ba nga xam ne tamit kooku mm. lu mu julliwu rek loolu baaxul muy tamit imaam Baye Magay Gay ndeysaan ca baax ga ak yar ga ak maanu ga ak civilisé ga ak euh, tame ga moom tamit laa ko tuddee bis bi waaye nag daal di koy dara jaale ki nga xam ne mooy Aaron Wade mm. ndeysaan euh, la euh, grand bu baax mm. ndeysaan nekk ki nga xam ne mooy commerçant bu mag ba mm. waaye tamit di ca ànd ak Thierno Gaye ak Baye Massata Ndiaye ak waa dëkk bépp Baye Moussa Baye Moussa Baye ak tamit ci ànd ak daal waa dëkk bi ñëpp daal kenn koy da inshallah allah sa ka invitation nako xaar inshallah dina la ko jox ande ak ci bisu cheikh abdullah Lahad boobu. Mm-hmm. ñaan tamit sante le cheikh abdullah Lahad Mbacke. te ya abdullah Lahad ya ko wax mo ngi non amna li nga xamanteni ci ni wax nako ko aussi bisu bisam bi nga xamanteni ci ni mom lay wajal fofu non ci diwanu kab gay mu melni euh, ñepp ñoko ñoo telespectateur déggandoo euh, Connection TV senegal yep ñom ñoko ko ak rawati na nga xamanteni ci ni nii ñi baye xel fepp ci aduna bi ëttu na ni la Euh, di DJ Camori doon la ko présenté la mu dalal ndaanaan lu mag muy Abdoulaye Sène wax na li nga xamante ni si ni moom moo ko dugal si wàllum animation wax na aussi li nga xamante ni si ni euh, mooy parcours am fi nga xamante ni si ni fa la jot a jaar ba dugg si wàllum xajo euh, mi ngi noonu Abdoulaye Sène géwélu jàngkat yi ndaanaan la mi ngi noonu ndaanaan laa ngi noonu tey tunaanaa ni moom la dalaloon Abdoulaye Sène di jëkka mariloon fii si euh, YouTube bu Teuf Connection TV Sénégal waaye yéen tamit dem leen ngeen abonné dem leen tamit ngeen partage suñu euh, lien yi waaye tamit dem leen ngeen aimé mu ngi noonu Teuf TV Teuf Connection TV Sénégal rendez-vous à la prochaine même heure même chaîne si kàttanu Yàlla